Basuma Basuma Mbare xamna ne tay wax ji du xawa neex ndax day xawa ñagas te fakk mu ñagas kenn mun ci len ndax senegal dekk la bo xamne je pense que ñaari nguur lay doxé nguur la bo xam jabar day jël ay décision di tek sur la table dom di jël ay décision di tek sur la table ak ay officier li ma wax suñu jigen di jël ay décision de catex sur la table comme yow Macky Sall nak yow yaani chef bu assumé nga sa njaboot coono un def ti la eh keroog li ngeen tu rëy lamiñ bi mu le 28 ou le 29 on va l'arrêter le 28 le 20 On ñu togon la télé le 20 ma dem ba ci bir ñew le 28. mooy ci dialogue jawuji mané dialogue jawuji la la laa leen amna ño xam buñ ko yëgee dina siw am ñuy ñëkënte Macky Sall mu ngi def jamm moo tax barki dem mané len duma wéddi kenn comme nee nañ dialogue lañuy def ñom ñi ngi wut jamm man duma wéddi kenn mais dafa am ñu ñu fi ñoon pyromane ci sen panel yi né ñun ay pyromane lañ ño bëgg taal réew mi mo ne ñom ñoo ñu ñoon pyromane Moussa Fall sen bay moy sen ndey yow Babacar Touré yow lay waxal direct man duma ma wala di jaar si gauche droite ci nit deugal ndayam té trop faux da nga faux té gor du faux fossété la gëna bañ ci aduna di mat di off baaxul ci gor baxul ci gor yalla boo leen ne Macky Sall ay roi du Maroc ki da ngay ni dul ndayam da ngay ni dul bu manté nek sen panel yi di dulal nit ñi di ñu traité de pyromane parce que da ngay ni yek dañ leen ni wax li def les xam nga lu metti presse sénégalais Sénégal dafa am manipulation dafa la presse nous xam dañ leen fay suuf pour nous, ñii live suñu waxee ñoom ñu mën ñu weddi ndax crédible pour nous. clair nous dañu xam lépp luy daw ci réew mi gënu leen ñoo xam day dëkk bi eh, accident personnes non 24 personnes du moins Marème Faye Sall ray ndey nit ñi ne day jàpp Sonko le vingt-huit bi xam kan moo si mun dara kenn du wax dëkk bi da ngeen naan teg béy bu ñuul bi ñu leen wax nañu yeewu ndeyam temps yëpp mu ngi kër Farba Ngom fa la ñu tegu pour ñëw jàpp Sonko nii ah def seeni i xërëm rey ndey ñit ñi ñëw diñ ko Sonko ne lan dafa sàcc portable su ma waxee tey journaliste faux yooyu après ñoom ñooy ñëwaat toogaat di ratatati di ubbi ndeyu seen làmmiñ yi taisez-vous ay jeunes militaires ngeen Kër Moussa ay ñox su ngeen ndeyam doo leen dara ñox su ngeen ay élève gendarme ngeen won gat doonu len ko ñun xam nañ ni mu demee yéen ak Père Kandé n'a jamais fait la Casamance bi ñuy guéri auto gendarmerie la yoron il s'est porté malade modèle 8 la muy duur ndeyam yéen da ngeen foog ñun da ngeen ñoo gën xam dëkk bi eh maram Faye Karok bim len nan le 28 arrestation bi ci procès bële amuñu fenn fuñ ko arrêté parce que amuñu won motifu arrêté ko. Karok nee naa capitaine gendarmerie yeb déplacé wu nañ dem pour ñen ñi jël sen responsabilité la. neewoon naa leen le premier août foog ko dem même bu la tëjee sa kër defal outrage outrage bi ñu doon wut ñoom loolu lañu calculer ñuy tay outrage bi ñu doon wut loolu la calculer tay filmer la par force par force filmer la par force tiimale la caméra bi ni surtout que bu ñu xamee ne jikko kat nga am filmer ko par force nee nañ Ousmane Sonko dafa ci portable pour muy clair boobu wax day leer communiquer bi publier naa ko sama page nee dafa sàcc portable mais sàcc portable bi du wax bi xërëm nañu seeni xërëm ba pare ba foog ne affaire bi day yomb si ñoom yee boo leen nelawee nii nii correctionnel la jëm ni soxlawul ay instruction Marème Faye Oumou Diallo doomu toccottu ndey mi ñoom ñoo décidé ne ñoom dañuy tëj Sonko par gis nga li man c'est que mënuma chaque fois tam bi répété wu gars da ngay répété wu journaliste doome xaraam Mata Ndiaye ñëw jaar la feneen duul katu toj way yow. qu'est-ce qui se passe dans ce pays lan mo xew Sénégal lan mo tax ñi dañuy encaisser xaliss di roux su suuf di fen c'est ça qui me fait mal. corruption pour mën nek à l'aise ba pare nak dañuy leen taxaw wax di wax ak yéen di matt di euf ndeyam da ngay ni duul bo leen nek dialogue bi roi du Maroc ko koy def da ngay ni duul vous mentez sur toute la ligne dialogue nit ñi à koy def espèce de menteur que vous êtes ku nekk di rap papi di wax. Macky bi défé li légui yek nako mais lepp moy assumé ndayam ndax jabaram ak def man bima yek le 28 dinañ C'est Sonko eh, lolu waxi Marème Faye Sall la. waxi Sall Moussa Fall ñoom Antoine Diome doomu xaraam yi keroog bi ñu tegee barrière yi lan laa leen waxoon ñëpp soulagé wu man leen focus si campagne électorale Sonko ñu xeex dëgg moo ñu koy jox live xaaju guddi na leen é eh, métti Sonko vous dof faire gars fa du candidat dañu deux ans il faut que Sonko mu porté au boppam piège la woon ci Sonko Sonko xam ko moo joxewul du 48 heures ko. ko le ko faxas buñ koy le na fexe ba ba mu riposté ndax biir que lañ koy jël na que ba ba mu que. heureusement. ay gendarme la Sagan takul takkul ci ken saaga ndey deful len mais mort yi ngeen ni gis ci geej gi mort yi ngeen ni gis ci geej gi mort yi ngeen ni gis ci tali bi eh Marème Faisal la maire Oumou Diallo Farba Ngom état buy def ay crime Ablaye Wade defoon nako ko ñaata mort la fi am ñu jign ko a commissaire Aronisi tey commissaire Arouna Sy nekk DGE direction générale des élections lan moo tax kenn waxul wax commissaire Arouna genre sacrifice yi la. lii mooy jigéen gu wasin si biir sacrifice lañ koy tuddé jigen lu wasin bi metti metti metti metti metti bu xassé accoucher dom bi genn douleur bi da koy faté lolou lañ nekk doome kharam yi di xërem nday sénégalais ni di rey nday nit ni sa bu Sonko defee concert de Castor rek ñu profito yeen jeunesse bi tay xex bi xola bàyyi leen Sonko mu tok fi mu tok mais niñ ko ne coppeet mi fexe leen ba ñoom la jóob booy na fépp tàkk ndayem gis nga moment bi amatul ay xaar c'est ma man discussion bi ñun foogoo naa ne duñ ci yegg foogoo naa ne bii heure man te Macky ma ñàkk sama ndey bii paa Sénégal bu ñu coupé réseau internet bi di ngeen bugg sax am téléphone fix yéen mu tëleen na Macky Sall osé rek coupé réseau téléphone bi armée fépp lañ yemale réseau dootul am ndeyu Sénégal téléphone fixe ak portable ak lépp lañ ci yemale coupel réseau internet bi yow Macky Sall on te défie sa tëj nday waay yow yow dang ñoom moom tëj nday prisonnier politique yëpp fay nday ay journaliste ñuy duul naan ay yaa ngi négocier ak roi du Maroc di dëgg sa nday nga foog ni Sonko dafay d'accord li ngeen li ngeen bëgg mu d'accord ngeen foog ni Sonko il va se constituer eh la jeunesse Sonko ne va jamais bu trahir moo tax tey ñu muuroo waat ko nii il ne va jamais vous bu ko neexoon nii xoola coow li fayna na fay si moom la dess mais du toog ak Macky Sall wax ku len ne Sonko day toog ak Macky wax da fay fen chaque jour ñu ne ma sa sa booy bi dafa dëgër bob chaque jour ñu wax ma ko ne ma sa boy bi dafa dëgër bob Sonko du toog ak Macky wax na len ko muy leer neena len mom amul lu muy wax ak Macky Sall il n'a rien à foutre avec Macky wax booboo dag nday seen xol bi peut-être que nu ko waxe amul diplomatie je n'ai rien à foutre avec Macky la len wax.

Quelle sera maintenant la valeur de Sonko, président Voilà. Quand on t'accuse de salafiste, on t'accuse de terroriste, de violeur, de voleur. Maintenant, égal à valeur de quoi chez Ousmane Sonko a la jeunesse Il y a ko mën prouver que Sonko a nday ñi valeur ñi ay a lañ ñi sax sa man man moom je signe de persiste ragalu samay wax. taxaw bëgg ne Marème Faye Sall gauche droite wala daganal Marème Faye Sall sa diggu la fal ndey saa boo yeewoo yàq Marème Faye Sall xam nga Sénégal day am fo xam dañuy wax ak yow melni ñun dañ leen ragal wala yi cottu ndeyam tay ma waroon nek Sénégal bi heure denc nañ ma wala ñu door ma bal ma daanu mais man ma dul seetaan ndayu li dem leen dëgg ndayu 100 mètres jël 100 mètres tribunal la jege Macky Sall warul ñibbi ci Sénégal wa Niger buñ ñu gëna goré Niger ngi basum loolu lay jë li Macky Sall plan am yépp la waa Niger defal échec tay mu dem fële ñu tuddé ko le mandjan de l'afrique mu tok du tontu Ibrahima Traoré Macky Sall ki mo toj cottu ndeyam kii ma xalaat doomu viol la doomu cottu nday mo tax mu dem viol doomu jàmbur yi doome xaraam yi ngeen doon ak sen ma jàmba jagn kanamu bu kat boy allez riposter riposter na cocktail molotov yi genn tak ndayem bu kenn nelaw tay Sonko bu fanaanee kaaw bolal nelawé ma paré ci wax ji ma xamné ay gor nekkatuñu Sénégal bu Sonko fanane kaaf ngeen nelaw combat bi yeex ak Sonko taxawoon vous leen doon wax bés buñu ñu kofee Sonko warul mat 24 quatre heures foog ngeen récupérer ko sinon li toy ci Sonko lay jóge ma leen wax nak ya ngeen nan projet bi nak c'est le moment d'assumer d'assurer et de protéger votre projet c'est à vous de protéger votre projet c'est le moment ou jamais c'est le moment de prendre le pays ou jamais c'est le moment de prendre votre responsabilité ou jamais Boy, Niger c'est le moment moment nous ñu ngi G4 a Niger Burkina Mali Guinée dugg nous ñu G5 on va assurer la sous-région là s'il vous plaît la jeunesse éveillez-vous je ne parle plus aux patriotes mais je parle de cette jeunesse éveillée dem leen libéral mandat, nday ay qui prison bi Abdou Karim Gueye Cheikh Omar yéen waa Sébikotane Thiès wàcc demain, 100 mètres ay kabaak dem gars allez libérer les détenus politiques d'abord. Que responsable politique yéen géejawaay fu ngeen nek jarul dem town Teug leen day responsable politique yépp. Xex dang koy mën ma nga bako.